obligations of a Muslim it's part of the obligatory pillars of Islam boo xam ne dañ perform it's very important pour ñu mun a toog si télé bi ñu mun koo waxtaane mun the importance of Ramadan and how should the Muslim be prepared him or herself towards Ramadan waa balaa wax bi di ma bàyyi suma guest bi Oustaz Ceesay mu mun a nuyu waat ak askan bi wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu suma sista suma yaay anti Mariam maa ngi la fay néew bi gën a foor ci néew yépp mooy asalaamualeykum wa wa barakaatuhu. wa rahmatullah. maa ngi nuyu ñi nga xam ne ñëpp waxtu bii ñi ngay seetaan programme bi ak fu mën a nekk rek ci biir àdduna si. ak ci biir rew mi di wax ni ñu dal ak si programme bi nga xam ne tey see lu bari abaw sen diin waye nak dañ de wax ne lu yëngu lu nek ñu ko yëngal lan moko ëpp doole ku dé ci marché ya tagé sa boppa fi nek li yëngu li ko yëngal moy wéri koor ah, sister mariam koor dafa laaj waajaay lu nekk am na waajaay ñu ko war a waajalee bala ñu egg si loo xam ni mooy li ñu wax ni mooy weeri koor ñu ngi am nag fiw yenn yoo xam ni moom lañ war a waxtaani bi ci njëkk mooy naka lañ war a waajalee weeri koor bu barkeel bi ñaareel bi mooy suñ demee ba nga xam ne xam nañ naka lañ ko war a waajalee waaw léegi nag how do we receive this Ramadan naka lañ ko war a welcome mu agsi nag ñetteel bi tam mooy koor si boppam balaa ñoo wax koor ak lu aju ci koor dinañ xam koor lan ak ban waxtu la war a nekk koor waaye koor si boppam itam mooy lan yii mooy yitte si nga xam insha allah subhanahu wa taala bëgg nañ see discours si ndimbal yàlla subhanahu wa insha allah ah tey ñu sant suñu borom ak gërëm ko bu baax a baax parce que moo ñu may time bi may ñu kàttan bi may ñu fan bi pour ñoo toog si télé bi mën a am waxtaan ak suñu mbokki jullit yi ju julli si yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant suma ñaari waajur yi suma waajur bu góor bu dellu si boroma di ko ñaanal yàlla xaare ko ajjana suuf bu sedd si kawam te jéggal ko bàkkaaram yi ñun ñu fi nekk tamit ay yàlla jàppale ñu ñu mën a am fan bu gudda ak weer bu yaram mm-hmm. suma waajur bu jigéen di ko ñaanal di ko gërëm di ko sant bu baax yal na ko yàlla may fan bu gudda yàlla may ko wér bu yaram yàlla may ko kattan bu mu liggéeyee njobooti yu nekk si gannaawam yàlla jàppale ko si njobooti yóbbu njobooti mu yomba si moom ah, suma jëkkër tamit di ko sant di ko gërëm di kontaan si moom di bég si moom bu baax a baax parce que moom may opportunité bi ma mën a ñëw toog si télé bi ma mën a waxtaan ak suma mbokki julliti mm-hmm. kon may kontaan si moom yu nekk di ko wax jërëjëf si coopération bi ak supportam yaram may ñaan yàlla yàlla may ko fan bu guddax mu may ko wér bu yaram yàlla may ko kattan bu moo liggéeyee njaboot yi nekk si ronam yàlla jàppale ko yóbbu njaboot yi mu yomb si moom yàlla may ko wér yàlla defar ko jaama yàlla sutura ko yàlla aar ko aar njaboot yi yëpp incha allahu rabbi waaw oustaz tamit dinaa ko gërëm bu baax a baax ma sant ko di ko wax jërëjëf mu jël time bi jël effort am bi ñoo fekk ma fii si bi TV international pour ñu mën a aw waxtaan kon oustaz ma yàlla may la fan bu guddax yàlla may la wér bi yaram yàlla may la kattan bi nga defee sa liggéey bi yàlla sutura la yàlla aar la yàlla aar njobooti incha allahu rabi liggéey bi ngeen di def nii dafa am solo torop asi askan bi askan bi dafa soxla yoo xam ne dañoo toog si télé bi di leen sensitise about our islamic diin kon di leen jaajëfal ustaas yu baax a baax a baax saa yu nekk di leen wax na jërëjën jëf yàlla la yàlla jàppale yàlla bàyyi leen fii yàlla may leen kattan bi ngeen mën a defee seen liggéey incha allahu Comme ni ma ko waxee woon beginning our topic of discussion is going to be a preparation towards Ramadan dégg na li fi oustaz wax ne incha allah bu ñu ko time bi maye loolu dinañ ko discuss bi incha allahu rabi dinaa jox a plateforme bi oustaz mu mun ñëw wax ne lan amoo nekka Ramadan bu ñu waxee Ramadan luy Ramadan and uh, how should a Muslim prepare him or herself towards Ramadan incha allah. bismillahi rahmaani rahim.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 kon sa gem des war rek ci waxtan ak yeen si naka lañ wara wajale waajale weeri koor sister mariam naka lañ wara wajale waajale weeri koor bi ci njëkk mooy ñu ci weer bo xamni mom lañu oy sha'ban sha'ban ba ci arab la way lim min ci local language mooy baraxlu daf la wone su ci joge rek ngay duga dugg si weeri koor motax ñu né li war ci waxtu bi moy ni ko wara a qodo ramadan moy nga fay wala nga seet sa bopa ci laas ramadan bu joggé ndax amon nga bor wala won bor su ko ne am nga bor yow no wara a wéri weeri koor lu ñëwam fos nga fay fay boobu nag soo ñëwee ci chariatul islamiya dafa wax ne mun naa nekk mu gaaw mun naa nekk mu yéex lu important rek mooy na nga fay moo tax mu ne qadaau ramadan yajibu ala al fawr wa yajibu wujuban muwassian fi ay waxtin wa kadalika jox ne la waxtu bu yaatu boo xam ne su la neexee bé bala weer koor di ñëwaat next mën mhm. nga ko fay waaye li gën mhm. mooy nga gaaw pour fay mhm. moo tax ñëw na ci hadis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadis boo xam ne suñ yaay aïcha radiallahu anha moo ko nettali mu ne ñoom daan nañ fay li nga xam ne mooy seen bori weeri koor si weer bii ñu nekk mooy chaabaan chaabaan mooy baraxlu baraxlu mooy moon bi nga xam ne afta moom rek weeri koor kon mooy weer biñ nekk ni incha allah subhanahu wa taala ne nag kan moo war a fay mooy koo xam ne mun naa fay waaye koo xam ne lu la woon bi nga lekk bori weeri koor bàyyiwul la ba léegi kon yow bokkaloo si ñi nga xam ne ba tey mën nañoo fay waaye koo xam ne li la téye woon nekkoon sa ngànta bàyyi na la soo balaa ñu demaat next ramadan kon last ramadan bi war nga koo fay kon loolu bokk na ci naka lañ war a waajalee li nga xam ne mooy weeri ko soo ñëwee ci wàllu fay itam am na définition boo xam ne moom la ko islaam jàngale mooy de fay boo ko déggee mooy li nga xam ne moom nga waroon a oor si las ramadan bi loolu nga war a ñëw nga mottali ko su fekkee ne da nga tàmbali woon su fekkee ne tàmbali woon dara nag nga ñëw nag jéem oor li nga xam ne moo doon waxtu weeru koor bu romboon yépp su fekkee dafa nekkoon 29 days nga or 29 days uh-huh. su nekkoon 30 days nga or 30 days loolu mooy ne weeri koor du nekk mukk 31 uh-huh. si islamic calendar amul 31 mukk 30 uh-huh. ah, rek moo am 29 am na waaw ah, waaye 28 ah, am comme ni nga xam ne ci nasaraan bi sen calendar amna ben benn bo xamné xam ne. 28 la waaw but islamical moom amul 31 amut itam li nga xamné moy 28 lim am moy 29 ak 30. inshallah euh suñu joggé ci lolu ah suñu joggé ci lolu nga gis ne mm-hmm. eh, fay bi so si ñëwé dafa des ci yow. Mm-hmm. ndax da nga bëgg fay every day. mu tegalanto mm-hmm. wala da nga bëgg nga séparate ko. moy nga dogale ko so oré few days nga noppale ko few days lolu dafa dess ci yow rek yow yay tan waye alquran mom mention son nako bu yaga mu wax ne wa man kaana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin axar ak uxra mu ne koo xam ne weeri koor bi mu doon ñëw dafa fekk yaa ngi feebar wala mu fekk la yaa ngi travel tukki wala mu fekk la si yeneen jëfe-jëfe yoo xam ne ti sharia islamia nanguna ko pour mo pamidla do or mu ne soo jeexalee loolu after weeri koor bi yow da nga war a fay fan yooyu su fekkee ne full moon bi yëpp la itam nga fay full moon bi dafa dépend nag comme ni ko waxee léegi su la neexee nga fay ko yëpp mu nekk arrangement te ko lantu su la neexee itam nga séparit ko nga or few days nga bàyyi few days dafa dépend ci yow rek moo tax mu ne inshaa saama farraka wa inshaa tataaba des na ci moom mhm. beneen bi tam mooy euh, am na benn masala bu sew fii boo xam ne laajte la ñu ne waaw koo xam ne nag dafa amoon mbool weeri koor mhm. mu war a fay waaye fayul mhm. léegi dafa liita fay mustaat di fay rek soo ñu dugga beneen weeri koor ah. léegi kooku naka la war a def ndax dafa continuer fayam bi wala dafa stop fayam bi mu oor weer bi nga xam ne moo taxaw Eh, loolu ci charia pour tont ko mooy yow mi nga xam ne da nga amoon bori weeri koor mhm. nga sant camara rek wala touré kunda <laughs> waaw wala maani kunda yi soo nga ne effridé mhm. soo afta dinaa or dinaa fay dinaa or dinaa fay <laughs> waajaay bu dul jee <laughs> ah, ok waajaay bu dul jee ba weer ko ñëw daanu ci sa kaw mhm. soo léegi li nga am pour def mooy da nga stop fay boo nekkoon di def léegi nga jooy nit ñi si weeru bi nga xam ne moo taxaw mm-hmm. ngasta di or ba weeru bi jeex mm-hmm. del su jeexee nag mm-hmm. fan yoo xam ne moo la desoon ci sa fay bi soo yow nga continuer fan yooyu pour fay ko ah, waaye su fekkee ne nag ah, lu tax nga léetoon pour fay ko si yow la waaye lu la woon nekk ngant bi bàyyi na bu yàgga yow yaa am sa sàggante boppam su boobaa islam dafa laa caaj caajis bi mooy di nga fay waa everyday boo fayee da nga léeg mooy mudd mm-hmm. mudd soo ko déggee mooy suñ kooree ba weeri koor bi jeex mm-hmm. am na lu ñuy tuddee asaka weeri koor mooy asaka muddam weeri koor waaw ñu ko wax dafa nekk uh, na full mag mm-hmm. am na boo xam ne moo ko toppa ñaar la am na boo xam ne moo gën a nekk bu ndaw bi boobu da ko natt ba ñeen ñeneenti yoon mooy pot bu ndaw bi pot bu ndaw bi ñeneenti yoon bu ko topp ñaari yoon bu mag bi boobu mooy benn yoon. kon pot bi dafa am sizes. waaw am sizes. Ah, waaye soo ñëwee si par exemple pour peese. Mhm. ñu ne dafa nekk two kilos and four grammes. ñaari kilo ak ñeenti grammes. soo ko bëggoon a peese. Mhm. mooy ñaari kilo maalo. Mhm. ak four grammes. ma four grammes moom bëriwul. gramme bëriwul. boo two kilos ak four grammes la. su boobaa nag def half bi waaw mooy dese nga xam ne. da nga waroon a or laas Ramadan. Mhm. or loo ko ba beneen Ramadan ñëw. Mhm. yaa ngi door di fay wéeri koor bu ees bi ñëw. Mhm. da nga am stop. soo stopee nag léegi li ngaa def mooy or wéeri koor bu ees bi. den su jeexee na nga continuer sa fay bi. waaye nag dafa am punishment. punishment bi mooy yow. lu la téye woon bàyyi woon na bu yàgga nga war a oor waaye waajaay bu dul jeex ñu ko waxee léegi. soo ba tax na weeri koor bu ees ñëw na fekk si la. oor nga ko ba mu jeex. waaye fay bi jeexuloon mm-hmm. nga continuer fay waaye fay boobu nag bis boo xamee ne rek yaa ngi oor mm-hmm. da natt xaafi mudda fuul bi nga joxe ko waaw loolu nag ba tey dañ ko def si lekk ñam mm-hmm. nga toog a toog boo xam ne wala soo toogee nga tubal loo xam ne dina mën a suur nit uh-huh. waaw benn Camara Kunda boo xam ne daf de mën a coob waaw xam ne dina coow bu baax ba suur waxuñ ñoo xam ne duñ de lekka lu bëri dañoo lekkantu waaye lekk ka dëgga bu mën a lekk nga jox ko loo xam ne dina si lekk ba suur moo xam añ la moo xam reer la moo xam deewal soo ko noonu mooy continuer ba bés yi nga xam ne moo desoon mu jeex su fekkee ne nag li ko téye woon ba tax mu am bori wéeri koor bi moo ko leeta bàyyi moo tax mu leeta fay bon su starté di fay ba wéeri koor bu ees bi taxaw dafaa bëri mooy jooylu weeri koor bu ees bi su jeexee rek. Mm-hmm. moom dafa continuer rek rek mu fay waaye du def euh, punishment bi ñu wax léegi. Mm-hmm. kon bi bu fa nekk. Mm-hmm. beneen bi tam mooy beneen masala la. bu important la léeg-léeg nga ko laajte. mooy koo xam ne dafa amoon laas weeri koor buñ génnee. ay bés yoo xam ne daf ko waroon a or. te mënul koon a or. Ah. mu ko fekkoon si jafe-jafe wala sa feebar wala daal am na nganta. oo sax mu dem nekk full moon bi mhm. yàlla def alhamdulilah bu mu si jógee koo bala ko mën a fay rek dee ñëw wàcce ci kawam mu dee mu génn àdduna mhm. léegi kon passé boobu dañoo wax ne génn àdduna ak boori weeri koor ñu daf ko war a fay wala ndax dañ ko ak su ko waree fay naka la ko war a fayee mhm. wala ndax mën nañ ko ko fayal wala bu fekkee dañ ko ko fayal itam ñen ñoo ko war a fayal bii mooy laajte oo dañ ko bàyyi noonu to teg moom du fayet soo kon gis nga ñetti laajte ngay suñ kanam. Mhm. ndax daf koo fay. Mhm. bu fekkee ne waaw la ansa bi mhm. naka xaaw su fekkee ne déedéet waaye mën nañ ko ko fayal. ñan ñoo ko war a fayal ak luñ ko war ñetteel bi su fekkee ne. du ko fay duñ ko ko fayal soo dañ koo bàyyi noonu soo ba tey itam noonu naka la lii moo nekk masala bi nga xam ne very important soo ñu dugg si details si ñu ne soo ñëwee si borom xam-xam yi ñëpp wax nañ ne képp koo xam ne dafa gaañu mu gaañuwaale bori weeri koor kooku su fekkoon ne julli la mm-hmm. ay bori julli la waaw julli waaw ñu ne kenn du ko fay du ko ko fayal mm-hmm. waaye su fekkee ne nag mm-hmm. ah bori la loolu moom mën nañ ko ko fayal moom already gaañu na xam nga or wàcc na ko dootu mën a or waaye nag ñu fi bàyyi nga xam ne ñooy doomam yi wala ñoo nekk ay borodam wala ay system. Mhm. wala ay antem wala ay oncle. Ah, close relatives. Ah. waaw rek xam ne ñoo bokk a borod. waaw ok ñooñu leen. mun nañ koo fayal. Mhm. wala sax su demee ba nga xam ne euh, njaboot yi. Mhm. doom amut. comme ñoo xam ne ñoo bokk ak moom. waaye am na ay xarit ay friends yoo xam ne ñooy tight friend la. soo ñuy tam sax su fekkee decide nañ. Mm-hmm. kenn si ñoom ne man pare naa pour ma fayal suma friend bi boori weer koor yi nga xam ne deyaale na ko. Mm-hmm. kooku itam ba tey waaye mooy last passing nag. mooy last passing waaye force bi ki ñu bëgg a. mooy doom. dem su doom mënul. soo li nga xam ne bokk na ak ñoom. mais c'est relatif si. relatif si. ok ñu fay. Mhm. ok boobu itam ko fayee mooy ak dalil bi. Mhm. evidence mooy. Mhm. benn waaye moo ñëw ci bi. sallallahu alayhi wa sallam mu jox ko correction bi. mu ne ko yow mi yàlla yónni. Ah, man de dama amoon suma waajur boo xam ne bu jigéen la. daf ko waroon waaye mun tax yàlla def balaa moo mën a or mu génn àdduna. ndax mun naa ko ko fayal moom loolu la ko posé question bi ndax mun naa ko ko fayal mm-hmm. mu ne ko ma laajte la benn laaj yi itam waaw tey su fekkoon ne da nga am bor nga am loo ko fayee ndax mun nga koo fay ah ansa bi mooy yees mu ne ko nag kon su fekkee ne loolu la demee si doomi aadama sakka nag yàlla subhanahu wa kon bori doomi aadama nit ni yow fay ko lu war la mm-hmm. ndegam am nga rawat na yalla subhanahu wa taala ah, mo ne ko kon su fekke ne mun nga ko so waji nga bi nekkul force de nekkul force so soo te mun ko mhm. te pare ko def mhm. no problem. mun nga seet des yo xam ne sa papa da ko or te mun mhm. ko or yalla def mu genn aduna ak bor bobu dem ak mom wala sa yaay la yow ko or ko or bobu dem soo ko def dafa melni rek normally or weeri koor mm-hmm. si waxtu xam nga or weeri si waxtu mm-hmm. dañ bëgg a soo staatee comme par exemple tomorrow ëllëg mm-hmm. rek aha danga or rek mu continue ba nga am 29 days li bi feeñ na nga jeexal o ñu ne weer bi feeñu mooy foos séntu bi mhm. kon da nga àggale tatti dees tatti dees nag suñ fa àggee moom weer bi gis nañ ko gisuñ ko yëpp léegi yow la waroon a or si islam mhm. léegi amount bi jeexal mooy twenty nine days or tatti dees léegi jeexal nga mhm. foofu nag li ñoo def mooy sooy or weeri kon normal noo ko war a ooree mooy teglante bés yi arrangement bi ñu moo toppalante noonu everyday amuloo chance amuloo benn order boo xam ne dañ ne permit pour nga dog koor te ëllëg nga noppale mhm. mhm, mhm, fay itam ñu ne noonu ngaa fayee par exemple itam julli la am na yenn borom xam ne maye nañ ne li important rek mooy fay bi fay bi waaw ak noo ko mën a fay bu fekkee da nga or bàyyi ay fan des na ci yow waaye daal nag compli li nga xam ne moom a fay muy few days la wala full moon bi la kon fay bi moom warta mën a ñàkk léegi nag ki nga xam ne dafa fayal ku mm-hmm. nekk si àdduna mm-hmm. soo moom itam di seemtin noonu la kon ma répétaat ko fii mooy mm-hmm. koo xam ne or ko daf la waroon yàlla def bala nga ko mën a def nga génn ak moom àdduna nga faatuwaale ak moom ah soo léegi ñi ngi fi bàyyi nga xam ne ñooy sa njaboot yi bu fekkee dañ décide pour fayal la ko non problème léegi alaaw nañ leen permet nañ leen ah. jox ni leen góoyet pour ñu fay ko suñu bëggee waaye du force nag. du forcer waaye nag suñ ko defee nag moo gën. Mhm. waaw loolu moom kon nañ ko xamee noonu. du ko da ngaa gis ñu xam ni dañoo war a or ñu mën a or système Mariam ñu toog fii rek. moom waaye dinaa fay dinaa fay. duñ fay. Mhm. ndeysaan bee demaale ak weeru koor. Mhm. Ah, loolu itam sax bunte bu sew boo xam ne dinañ ci ñëw. si suñ sa yi nga xam ne suñ ooree. waaye boobu moom suñ duggee si biir waxtaanee weeru koor bi la. mooy jigéen bi nga xam ne dafa ëmba. ak jigéen bi nga xam ne dafa nàmpal mm-hmm. ak jigéen bi nga xam ne su ooree ak lim ëmb si biiram bi mm-hmm. ah, mun naa loru waaye moom koor gi du ko affect dara oo oh, xale bi la mu affect waaye moom mun naa seef wala xale bi moom seef na mu ngi seefti alhamdulilah du ko mm-hmm. affect dara pot moom mi ëmba mun na ko affect boobu itam details yu garaaw la foofu noonu yoo xam ne dafa sensitive mhm. very very critical foog ñu leeral foofu itam mhm. ah, beneen bi itam ki nga xam ne dafa nampal mhm. mu ngi am doom di ko nampal soo ci biir or gim or suy nampal ah, moom mun na ko wikk dégg waaye xale bi du am benn problème wala moom su ooree mm-hmm. du am meew bu nampale xale bi danga gis ne kon xale bi mooy loru. xale bi mooy ji nga kooku daal am nañu ko islam sant. Mhm. soo foofu nag buñ duggee moom si biir weeri koor bi la incha ci la ñuy ñëw. waaye fii tey moom. Mhm. liñ ñu a leeral mooy. Mhm. nu ñu war a waajalee weeri mooy foos. mooy ñi nga xam ni amoon nañ bor si laas weeri koor. nañ tara ñu fay ko. ndax su waxtu fay lay nekk. su ko defee nag fii charia mu ne. borom kër gu nekk. nan nemmeeku doole ko si nemmeeku mooy nga seet. ci sa soxla yi wala bu fekkee ne benn soxna nga am. Mhm. nga seet waaw ndax laas yi amoon na boo dee weeri koor. Mhm. sa doom yu jigéen yi wala sa sistas yi. Mhm. because jigéen moom jafe na weeri dugga ba jeex te amul gàtt. waaw waaw foog mu am su dee ñetti bés. su dee ñeneenta sudah dee sudah su dee sudah benn su sudah juróom ñaar loolu daf ci xapp waaw su ko defee fi mu nekk kon door na xam am nga responsibility uh-huh. si sa kër you are responsibility man uh-huh. da nga am kàddu ci sa kër waaw soo di laaj ah, waaw because loolu dafa war de waaw waaw ma last year weer koor buy romba nii baa fay ngeen uh-huh. seen bool ah ñu time fay ah daal papa man de fay na ah eh, eh, naka eh, oncle man de fayaguma kon gaaw nga fay because wax nañ la fii ne koo xam ne moom la nee mu liita fay ba weeru koor bu ees taxaw dafa stop mu oor bor suy fay ëllëg daf ko boole ak punishment wax nañ ne punishment bi léegi mooy natt xaafi muddi soo ooree ba weeru koor bi jaar mm-hmm. asaka muddi koor bi nga natt mm-hmm. yow xaaf bi nga natt gis nga loolu yëpp xam nga métti na si. te am na ñoo xam ne sax duñ def loolu. Mhm. Euh, système Mariam am na tam leneen lu métti loo xam ne mooy. Mhm. am na jigéen ñoo xam ne wallahi dàmbale nañ ñetti weeri koor. Mhm. wala ñeneent yoo xam ne. mosuñu oor. because waaye su weeri koor di ñëw. mu ngi leen fekk ñu umba wala ñu ngi nàmpal. waaw every Ramadan. kon mu la fekk yaa ngi nàmpal. waaw yaa ngi umba. yaa ngi nekk jigéen yu wéru. wala ndey kumba. wala ni nga ko ooyee rek moom borom ñaari tur yi. <laughs> ak kumba ak jigéen yu <laughs> waaw yooyu yëpp dañ ko def day nekk. waaw soo waaw yow kon kañ ngaa or. soo foofu itam borom kër yi nañ dimbale suñ ah, sista si. Mhm. waaw seen jabar yi. Mhm. di wax ak ñoom. ah yow moom man gëj naa gis nga or de xanaa xew waaw suma oncle man xam nga weer koor bi laas ngeen ba mu doon ñëw. maa ngi mhm. fekkoon maa ngi biir. waaw. benen bi mu ngi fekk ma ngi nampal. Mm. te mënumaa boole nampal bi ak or bi. Mm. motax ma ne dite fi nekk foofu suñ fa àggee. Mm-hmm. dañ ko leeral ba mu leer. pour jigéen ñi xam lan seen taxawaay. Mm-hmm. kon allah. Mm-hmm. lii li nga xam ne. mooy li war a waajalee kenn ku nekk si ñun. si weeri koor ak ko doon eh, islamic law. islamic law sharia. den suñ ci jógee ko nag allah dinaa la passe mic bi. ñu ñëw si naka lañ war a waajalee nag weeri koor. waaw ah, jërëjëf ah si leerange boobu oustaz waa balaa ñuy dem si ah, naka la ñoo waajale weeri koor léegi a ah, gis na ne most of the time dafa nekk si jigéen yi dañoo toog ne dañoo am bor te deliberately duñ dee nangoo fay seen bor yi te fekk dara jotut leen lan moo nekk di punishment that Islam says about that. thank you very much um, foog naa ne sax bi maa ñëw am na ku ma laajte loolu si moto bi maa ngi ko ansa mm. te lu bari la si waxtu bi mm. daf di am itam. ci góor ñi soo loolu su amee rek waaye yàlla dimbali na la alhamdulilah bokk la su ñoo xam ne dañ weddi weeri koor waru waaye bu fekkee ne dafa si ñoo xam ne li nekk sa mayn bi yëpp mooy weeri koor nekkul lu loo xam ne soo ko defee yàlla reward la soo ko deful mu jox la bàkkaar soo su boobaa alhamdulilah li nga def mooy danga fay waaye dafa am punishment policeman bi moy yow la neex nga tok ke jike jike rek nga dok wala yow la neex nga tok nga jike jike nga baña or te julit nga te gëm nga ne wey koor mu ngi ci five pillars yi nga xamne ci l'islam la bokk moy juromi pillars yi nga xamne mom la l'islam taxawé moy shahada den sola zakat haj and dem uh-huh. léegi su fekke loolu alhamdullilah yang ko bilif wa uh-huh. bo mom alhamdullilah dañ la tublo nga jéegalu bakar bo den uh-huh. nak nga or waye bis bo xam yaangi or bis bo bu dang koy leel wa moy dang ko nat mudd dang koy nattal mudd wa wa léegi na soko ko amul nag wa ko amul dole ko nat natt wa bu amul dole pour nat nak nga def or bi nga def or bi kasse kon wacc na la waaye bu fekke ne mun ko uh-huh. o mun la ko waaye am nga ko xamne ne na la ko uh-huh. comme for example sa ben brodo mu ne alal ma may la loo jëlee saako mal waaw mu may la uh-huh. ba am nga waaye nak du jar nga lebi ko du jar itam nga dem diko saraxtu waaye li nga mun nga am nga ko ci sa mun mun su do ta nay dañ lay force nga génne jënd mal te bis bo war o rek na tamut mut bu fekke nak alhamdulillah yow mom weeri koor farata la bu war mhm. boo xam ne bàyyi force la mu ngi mhm. bokk ci juróomi ponk lislaam yi mhm. su boobaa yow weddi nga yàlla weddi nga liy wàcce ci muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam weddi nga bokk bi muy alquran bi nga xam ne moo nekk luwaayu jullit yi direction bi xibla bi yow bañ nga ko su boobaa kon kooku mooy ki nga xam ne dafa murtad moy dafa génn ci islam eh. lolu yalla ñu ci yalla musal euh eh. ah, amé itam benen laccé bo xam ne ñoo dend eh. mooy ku toog bam toog ba mu mu doon orom yaaga mu né bayina mu jéké jéki sax mu né du du mos sax benn bés pour mu ko du or at all du or te amu benn ngant yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu né kooku suñ ko waré mu bañ dëgër bopp siisu ne mom dafa baña ñak or te mën na or te mhm. am su demon bam yag muti mu ragal mu delu wat gannaaw mu ne dama bëgg or nga ne gis nga kooku su pare won or eh, life fam bi yep mhm. ha jurin laay fam bi dundam bi yëpp mhm. pour fay benn bes bo du ko mëna fay kon xam nga sa maram lolu dafa dangereux yes ya ci denc bo xamni xamuloko ko eh yow weer ko jot nga war a oor bokk si ñu mun a oor nga toog la nga bañ ne doo oor ñu waare la nga bañ ragaloo yàlla <laughs> tiituloo mhm. nga foos sa bopp ne dangaa aay sa bopp oor te dara jotul la mu ne nga toog ba mu yàgg nga nga réccu mhm. nga tiit nga ne xaral imaam ma dama bëgg oor léegi ñu ne sa laay bi li des yëpp soo ko bëggoon a oor pour fay ko benn bis boobu mhm. lu tax ko kon si sa Mariam euh, si ansa sa correction boobu loolu la ci islam am pour wax moo tax war nañoo bàyyi xel bu baax ñu ragalloo suñ njaboot yi uh-huh. suñoo xam ne war nañoo jot a oor uh-huh. te mun nañoo oor weeri koor jot uh-huh. ñu gis ñu lekk di lekk di naan bañ a oor waaw te loolu ko dina ci kër yi de bari na ba pare système bari dafa am benn hadis mu ne koo xam ne ñett yii bok nga ci ñi nga ñoo war war na ci yow nga mun ko te amul ben ngant uh-huh. mu ne so si baye ben rek weddi nga yalla weddi yéen saa su waaw man taraka minhunna waxida la wax nga mun ci ben waxon ñet yëpp de waye mu war la nga bok ci ñu war nga baye ko te amul ben ngant uh-huh. yow mu ne génn nga ci islam moy lan moy gannaaw shahada shahadatu an la ilaha illallah xam nga bala ngaa mën a def dara si islam. Uh-huh. foog nga jël shahada mooy nga seede ne yàlla kenn la. Uh-huh. amul ñaareel. Uh-huh. sàkka ñetteel. moom lay war a jaamu jaamu ngi nekk njëriñ fii si àdduna waaye ëllëg mun na laa jural texe àllaaxira nga gëm ne di prophète Muhammad sallallahu wa sallam yàlla moo ko yónni. soo jógee ci loolu julli waxtu juróom. ñetteel mooy or weeri waaye sista Mariam. ñaata tey ci suñ njaboot yi. Mhm. ngaa gis ñoo xam ne ay ponk yi jëpp weeri koor jot nga gis bëccëgi weeri koor duñu ragal duñ tiit ñu ngaa lekk di naan mhm. anti mariam weeri koor yëpp first day bi second day third day mhm. boo ñëwee ten day sa jeex na wallaahi ñu bëri first day la first day kay soo yéexee yéen bi nga xam ne yéen a nekkoon sax-sax yi jàkka bi si first sàpp bi doo leen ko am yéen ngi am second time wala first then di following day. Uh-huh. noonu la commencé wàññeeku muy wàññeeku. every day goon rek it nit ñaa dem. Uh-huh. weeru koor bis buy dem rek weeru koor nit dem subhanallah. Uh-huh. ba pare am na ñaari xeeti nit ñoo xam ni. léeg-léeg nga yërëm leen da ngaa ñoom bokkuñ ci diine ji. wallaahi ñu baalal ma nag. mooy nekkul ñëpp de fiiw la nag bëriwul. xam nga lu bon nekkul ne ñëpp a bon ñoo koy def bon few people ñu ndaw rek. ñooy nekk benn groupe boo xam ne rek soo ñoom ñooy def mode boobu su ko defee su fekkee mun laa contrôle sa bopp si nooy waxee. Uh-huh. nga ne yéen ñëpp bon non ñëpp mënuñoo bon waaw da ngaa wax ñi bon. Uh-huh. ak ñoo xam ne bon. Uh-huh. baax rek ñëpp mënuñoo baax. ñëpp mënuñoo baax waaye am na ñu baax. waaw bon itam ñëpp nekkoon ñoo bon waaye am na ñu bon. soo ñooñu mooy suma yenn mbokki ndonga dara fay. ak apprenti ñoom dañ mel ni bokk si weeru soo demee si garage yi daw na yaram. moom laa wax. da ngaa fekk boolante ko ak ay saaga yu metti lu kër ba pare dafa am ñoo xam ne dañoo togg sax su restaurant yi closé sax ñu mhm. toggal leen lekkaat yi naat mhm. ak i wëññoo waaw ah, different qualities wëññoo ñu ñu jël di naan rek di lekk foog nañoo bokk ci soo lii dafa nekk loo xam ne lu métti la wala nga am sa doom yu góor yoo xam ne ñu ngi maccu mhm. nekk mu kalaf nga or or wat ci ñoom. ma dem nga seetaan leen ñuy dem. Ah, so loolu musiba la yalla ñu jall yàlla musal soo léegi ñu duggoo ci suñu second topic bi mo nek naka lay wara a wéré ko so fi sharia dafa wax ni su fekkoon ne yow mi nek nit ak ko mu a do ini pass bi la la wax ñu ne la am na sa friend bo xamne ne gëj ak mo jamono bu yaga jékki-jékki rek yow nga receive call. Mm-hmm. oo nit receive la call mu ne la anti Mariam am yaa moom call nga jël call. yes hello asalaamualeykum wa rahmatulah wa barakaatu kan la mu ne hey Mariam man la diw sangam nga akbar su dee ñeneen ñoom oh bon you are muslim dangaa tudd yàlla. Mm-hmm. nga ne subhanallah akbar nga ne allahu akbar waaw waaye su dee ñeneen dañoo yuuxu. waaw yuuxu oh uh-huh. gis nga den waxtaan bi start. communication dugal nga commencé di wax uh-huh. ak moom. di déggoo ak moom. bés waxtaan bi mu ne la man nag dama pare decide naa léegi. Uh-huh. pour ñëw seet la dama bëgg jël few days moo xam mu ne ten days la wala twenty days la wala benn one month. pour ñëw seet la gana la ndax mu ne di nga kontaan wala doo kontaan ansa bi moy yes dina sa friend bo xam ne na si friend yi gëna bax nga tok waxtu bu yàgg gisewu la ak mom fi misal la lay jox ya. ben bes rek mu koolal la boppam ngeen waxtaan bo len waxtaanee ci bir waxtaan bi mu wax la né dama ya. na bëgg pour la tanana few yo xamné dama bëgg a ñëw toog ak yow jàkkaarloo ak yow gisante ak yow waxtaan ak yow. Mhm. gane si la da nga kontaan doo kontaan. mu ne dinaa benn correction ak benn ansa. Mhm. seconde correction mu ne ndax gan boobu du laaj. Mhm. nga defal ko waajaay mooy nga waa def waaj ah kay foog nga waajal waaw. su ñëwee fi moo dal. Mhm. ak lu mu faa dalee. Mhm. defal ko benn timetable boo xam ni. Mhm. mooy lekk yi nga xam ne moom ngay pare pour di ko toogal lekk yi nga xam ne moom la gën a bugg moom la gënoon a namm si suñu lekk yi fii boobu te dafa am. nga ne waaw suñ demee ba nga xam ne nag wax nañ ne nag dee lu war a ñëw tey la wala suba la. dina jot naka ngay demee pour receive ko nag si airport bi. wala fu war a wàcc. bo xam ci féri bi la eh. moo xam ci garage bi pour nga dem sif sa gan nga né ah suma gan bu né ko do wajal yépp eh. dé di la doomu axé wa ngeen yékk waye da nga préparé fu mo wara dal la yu wara a ni ak ciataay bi la ko fompa eh. neeg bi loo xam ne lu tirim la doo bëgg mu gis ko loo xam ne xeet bu naxare loo bëgg mu xeeñ ko yépp nga utal ko waaw loo xam ne war fekk place bi yépp mu nekk Alhamdulillah. alhamdulilah léegi bis bi na nga def pour ko six months before ramadan came dañ mhm. daan toog di ñaan yàlla subhanahu wa taala di wax ni yàlla ñu ñaan nga boole ñi ci am dunda mhm. ak mhm. si ñoo xam ne danañ ñu oh gis nga loolu la nekk di ñaan yàlla. because yombul am na ñoo xam ne yow loolu ak ñoom last year. waaw before this year. dem nañ mm-hmm. last Ramadan yow la ak ñoom. Mm-hmm. before this dem nañ. dem nañ soo moo tax nag. yombu mbir bi nekku ci sa loxo nekku ci loxo kenn ci loxo yàlla nekk mm-hmm. ngay bugga di ñaan yàlla mu may la dunda bàyyi la fi ba nga fekkee ëllëg weeri koor <laughs> yàlla boole la igéen si ñu nga xam ne dañ mën a oor ba pare ñuy oor bi ne itam dañ fekkee weer koor te duñ mën a oor am na ñoo xam ne itam danañ fekkee weer koor te amul benn moo tax always di ñaan yàlla mhm. su la mayee dunda mhm. mu bàyyi la fi mhm. ba nga fekkee weeri koor ko ñaari yëf na la boole si ñoo xam ne dañ ko mën a oor danañ a oor ba pare oor because léeg-léeg mbir mi am ñu ko mun ko def mhm. bon du em rek ci mun ko waaye mun ko ak def ko very important mhm. su ko defee saxaaba di ñaan yàlla loolu mhm. suñ demee ba nga xam ne fekkee ne koor or ko ñu ngi dem weer koor bi jeex su after six months ah, after the ramadan ñu door di ñaan yàlla yàlla ñu laa ñaan weer koor bu jógee nii or gi si doon def yàlla nga ñu ko nangu soo ñu ko nangulee yàlla nga ko gërëm. Mhm. xam nga yàlla lu mu gërëmul mooy loo xam ne kontaan waaw loolu yàlla du ko woon mhm. waaye yàlla lu mu kontaan. Mhm. gërëm na ko te yàlla su ko gërëmee daf koy acceptal boppam nangul ko boppam. daf laa riwoon ci loolu fay la. allah moo tax loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax bis ak saxaaba si mu ne amul kenn si ñun koo xam ne. jëfoo bu baax rek doy na ko. witaaw njéggali yàlla. ak yërmande yàlla ba mun see sukkandikoo jaaree ci loolu dem ajana witaawul yàlla jégal yaram moo tax li su fi jógee ko gisoo li ëppa doole si liñ ko ñaanal yépp système Mariam mooy daal yàlla ko yàlla jégal te yaram si lu baax lu mu lu baax loolu witaawul yërmande yàlla moo tax nag ñu wax la fii misaal bi ma laa jox nii de. Mhm. su fekkoon ne tey da nga am gan boo xam ne. Mhm. sa friend la. Mhm. ngeen gëj a gisante. one day mu call la mu ne dama la bëgg a ñëw la. da nga ko waajal waajaay yoo xam ne yëpp moo ci war. ak su ñëwee foo koy dalal ak loo bëgg a demee ak moom bëkkaloon gan bi di jeex. loolu la ngi mooy kon gan boo xam ne moom. romb na sa gan romb na suma gan. waaye gani yàlla subhaanahu wa gani yónent bi la sallallahu alayhi wa sallam gani malaayika yi la gani mboolem jullit bu gëm yàlla mm-hmm. te ragal yàlla la mm-hmm. mooy lan weeri koor kon ñu ne si fii la ñoo jaaree wax ni mm-hmm. mbokk yi ñoo déglu ak ñuy seetaan yépp ne weeri koor ngi ñëw gan la boo xam ne mooy gani yàlla bi gan la boo xam ne yàlla moo ko njëkk a soppal boppam yónent bi sallallahu alayhi wa sallam sopp ko malaayika yi sopp ko jullit yi gëm yàlla yépp soppal ko seen boppa bugal ko seen bokka boppa kon wéeru ko a ngeen ñëw wax nañ la yow julit bi lan mooy li nga xam ne moom nga war a séntoo weer bi ci waajal ko mooy ku ci amoon bor gaawal nga fay bor yi bi mooy last chance pour nga mën a fay sa bor yi boo ko fay ba ñëw nag ko fayaat after di ramadan bi pare dina am punishment so balaa ñu àgg ci loolu nag kon nañ xam ni fay bor weeri koor weer bii moo ci des ñoo góorgóoru fay ko am na ñu bari ñoo xam ne nag yëg naa ne duñ mën a jeexal. ñu ko yëguñ ko woon. waaw ñoom euh, si week yi romb rek lañu start. waaw fekk booba dem na sax one week. Mm-hmm. ak some days. ñu ñu door def. am na ñoo xam ne dañ am na ñoo xam ne sax xamuñ sax ne lu am na ñoo xam ne soo kon lii. mooy loo xam ne incha allah subhanahu wa taala. Mhm. mooy ñaari toppe yi nga xam ne. Mhm. Euh, laalagum nañ ko. Mhm. ak collection yi nga xam ne. dugg na si diggante bi ñu ànd ko. léegi su fekkee ne incha allah bu am na leneen lu bëgg a laal itam. balaa ñoo dugg ci suuf seconde euh, taag topic.